الشيخ محمد رادي جنون بعد 375 اه، قوله أسألك اللهم بمرتبة هذه العظمة وإطلاقها في وجود في وجد وعدم من وخم جمي أسألك اللهم يا يالا مان لينيان بمرتبة هذه العظمة في جراتك بلا مجاي. manam ci garaat ak sak màggaay wa itlaqiha ak booyal bi nga ko booyal fi wujjin ci xamal wa adamin ak ci ñàkkal maanaam ci aalamul adami ak aalamul wujud wala aalamul ijaad màgg giñ fa màgg yàlla màggaay gim màgg ci ahadiyatoom gi ak màgg gim màgg ci muhammadiyatoom gi martaba boobu lay ñaan Mawlana Cheikh Tidiane ne alam xamal ni anna martabata hadihi alazama grat ak boobule màgg wa hiya suura allati xalaqaha min nuuri kaamil te mooy leeram gu mat ki alqaabil leer googu nga xam ne yàlla aji aji déktërloog moom la tawassala biha wasilatan lima yatlubuhu lima yatlubuhu baadu fi martabati hadihi al azama ne tawassala biha sàkku jokku ci moom wasilatan jokkuwaay boo xam ne dafay aju ci li ma yatlubuhu ci li muy loo xam ne dina ko sàkku baadu ñenn ñi bi martabat yi wala lenn wala ginnaaw loolu ginnaaw maanaam dina ko sàkku baadu ginnaaw càkkuteefam boobu bi martabatin ci giraat go martabati haadil azama ci giraat ak bile màgg bi maana maa ngi jokkandiku ci màggaay ak leer ak yonantu bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne moo gongeekoo ci jëmmi yàlla ji def ko wasiila ngir yàlla defal ma sa samay xaaju وقوله وخم جي وإطلاقها في وجد وعدم بويل أك بويل جنكو بويل مم عزمة غوبو في وجود جي أك عدم جي أراد أن هذه العزمة لمكن موي بوبل ماك وهي الحقة المحمدية موي حقة المحمدية سارية أجي دخلة في جميع في جميع ذوات الوجود تنبول جميع نكتف من كل ما آه نف نف نفذت المشيئة ci lépp loo xam ne rek coobarek yàlla gi exécuté na ko fii ci moom min ifraaj yi ci génnee ko min al adam ci ñàkk ilal wujud indi ko ci kaw fii diggante ahadiyatu muhammadiyatu rek lay jàngale ci yow mi xam yàlla xaqiqatul ahad ah, muhammadiya ak xaqiqatul ahadiya dong lay jàngale fii li jugee ci ahadiyatu bi nga xam ne adam la royaatal ci muhammadiyatu bi nga xam ne wujud la loolu lay wax moo tax téere bi ku xamul yàlla boo ñëwee ba fii da ngay jag moo tax ñu bari ñu mel ni sama classe bi ñu mel ni man yépp buñ firee sira zaatiya bi rek dañuy taxaw ndax après dañuy am jafe-jafe ci firi yu mel nii mhm. wa min kulli ma nafazat al machiatu bi ibqaayi ak lépp loo xam ne rek coobare gi yàlla gi dogal na bi ibtaa yi ci defal ko fi fayul adami ci ak ñàkk maanaam loo xam ne du mës a génn ahadiyatu yàlla gi wa huwa loolu mooy namm-nammam gim namm ci wa itlaaqiha fi wujbin wa adamin ak booyal ko ci wujdu gi ci xamam gi wa adamin ak ci ñàkkam gi mooy li yàlla tàllal ci wujud gi nga xam ne mi ngi jugee ci aalamul ijaad mu péeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak li nga xam ne dafa gongeekoo ci euh, li nga xam ne moom mooy ahadiyatu nga xam ne dara du ko feeñ mu mel ni rek day nekk al adamul mahd waaw mu ne araada biha lim tina namm huna xaqatul muhammadiya xaqatul muhammadiya wa hiya ruuxu saari te mooy ruux bi nga xam ne mooy royaatal fi jami zawaati mawjudihi ci mboolem nekk teefam yi wama duumi maanaam lim amal ak lim ñàkkal lakinna saryaanaha waaye royaatalam googu fil mawjudi ci nekk teef ki zahirun feeñ la wa saryaanuha royaatalam ga fil maadumi ci yàlla ñàkkal albaaqi fi tayil adam yi nga xam ne dafa des ci dafa dëxañu ci ñàkk ak ci bi xaytu laa wujuda la ndax amut akak ak nekk saabul madrak lu jafee jot la te ñàkk googu mooy jëmmi am gi waaye am googu yi tamit mooy jëmmi ñàkk gi laa tutiqul uqula uqulu fahmahu loolu xel yi mënuñ koo dégg wala idrakata mënuñ koo jot wala yaalamuhu ala alxaqiqati illa allah dëgg dëgg ak kenn xamu ko ku xam nga ni ahadiyatu yàlla te jëlii la bu def ci boppam ngir boppam ngir wëlees boppam ci boppam kenn amu ci تشير أه، أه، لدول الله واحد فهذا إطلاق هذا الموي بويل في وجين حكم وعدم أكيد نعم قوله وخم لأن تصلي رجل وتسلم تكسلما فهذا مسؤول الثائل بقوله العلموي إيه، ما نعم راجب أجي اللاجي ولا بقموي تونتك أجي اللاجي ولا رسponsابلتك أجي اللاجي بقوله جوهم أن تصلي أنك جلي وتصلي أنك سلم سأل من الله تعالى أن ينجع الله أن يصلي مجلي لك على نبي صلى الله عليه وسلم سيون أنت صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه من الله جلي بمي جلي جملك سيون أنت صلى الله عليه وسلم من الله تعالى ها هنا فيه توفيقية lolu julle tawfiq yi la manan yalla daf koy deppal daf koy mengale mom li laa tualamu xaqa xaqiqatuha dëgg-dëggam nag kenn du ko xam xawluhu waxam ji ala turjumaani lisaanil qidam yi jaarale ko ci interprète u làmmiñu làmmiñu qidam maanaam làmmiñu cosaan gi ak turjumaanu huwa alladi yuabbiru an maana al kalaam turjumaan mooy interprète mooy ki nga xam ne mooy addu ci maanay baat alladi laysa inda saamii maarifatuhu baat boo xam ne ki koy dégg xamut lu muy firi mu firil ko ko wa haahuna fii nag maanaahu lu mu ci jublu huwa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mooy yonente bi wa sallam wa lisaanul qidami làmmiñu cosaan huwa alquran mooy alquran wa utliqa alayhi lisaan dañ koo tuddee lisaan maanaam làmmiñ wa in kaana laysa bi lisaanin doonte ka alquran bu làmmiñ min baabi itlaaqi ismi laazim ci buntëb booyal ismu laazim tur woo xam ne turak aji yelloo ji la maanaam tur wum yelloo la ala ismi mazlum yi ci ci ci maanaam tur woo xam ne wu yell la ci ci ko yelloo mhm. yaqul subhanahu wa taala mu ne yàlla subhanahu wa taala wax na ni wa alsinatikum wa alwaanikum bokk na ci kaw ak yàlla bind gi mu bind ak suuf ak wutale gi mu wutale ak seen làmmiñ ak seen kulóoru yàlla أما الاختلاف في اللون ووتش الكلور نك ظاهر لفين لو أما اختلاف الألسنة ووتش لامن نك فاللسان في حق كل آدمي موي ووتش مانام لامن بوبو في حق كل آدمي كي أكا بيب دوم آدم هو متماثل هيبايا وإنما اختلافه سن سنك ووتش في العبارات كي كادو يلا الواردة ينخبني خبني رد في البياني كي ليرال عن المعاني كي معناي بعدين جنة fa haadihi hiya allati fiha al ixtilaaf maanaay baat yooyu ci la wuute am wa utliqa alayhi ismul lisaan dañ ko tuddee baat turab làmmiñ moom alquran li kawniha laazimatan laazimatun la ndax lum yellool la wal lisaanu malzumun biha te làmmiñ tamit yell na ñu dàkkantalee ko alquran ndax alquran ay kàddu la ñuy wax ci zaahir waaye melow yàlla la ci baat te xam nga ni eh, làmmi làmmiñ madda la bu ñuy laal di ko yëg waaye kalaam nag maanaa la boo xam ne duñ ko laal duñ ko yëg kon yàlla kalaamam la tëbb ci lisaan mu mën a génn moo tax alquran ñu koy wax kalaamullah hmm. eh, waaw mu ne min baabi tasmiyati shay bismi malzumi yi dafay dañ koy dugal rek ci buntëb tuddee mbir loo xam ne yelloo na ko fa li haada loolu moo tax utliqal lisaanu an il quraan yi moo tax ñu tuddee al quraan lammiñ fii li kawnihi waaridan ala alsinatil basar ndax al quraan nekk ci mu nekk di rot maanaam di tukkee ci lammiñu mbindeef yi muq ra raun ñu di ko jàng bi alsinatihim seen làmmiñ foofu di xaale yi lisaan ñu tuddee ko làmmiñ bi haadal bi haada ci loolu li kawnihi mulaaziman bi alsinatihim ndax alquran lim taqoog làmmiñu jaam jaw doomu aadama wala alla man yaqul amaan na ñuy wax ni laa yasixu ma zakartum li ngeen wax ni wérut min anna lisaan alqidam walladi utliqa alayhi lisaan lisaan alqidam moom lañu booyal ci làmmiñ rek wa zalika wasfu zatil muqaddasa te loolu boo ko waxee dafay mel ni da ngay melale yàlla wi nga xam ne dafa jomb ñu koy melale dara isla idama li ghayriha ndax dara jiitu ci lu dul moom maanaam Cheikh Tidiane ne ku taxaw di diingat wax loolu qul naa ñu ne inna itlaqa lisaani alayhi fi tasmiyatihi bil quran booyal biñ booyal làmmiñ ci tuddee ko al quran wa amma fi ghayri tasmiyatihi bil quran fekkee nag dañ ko tuddee leneen lu dul alquran fala yut la pende yi lisaan duñ ko booyal ñu tuddee ko lisaanul xinam mukk déedéet is la yusamma quranan illa ida waqa ala alsinati basar la alquran duñ ko tuddee alquran mukk fekk tàbbiwut ci lamiñ doomu aadama yaqra'una kalaam allah ñuy jàng kaddu yàlla falida sumiya quranan loolu tax ñu tuddee ko alquran wa amma mahiyatuhu fi ayni zaat lam doon nag ci jëmmi zaatu gi falaa yusamma biha quraanan duñ ko tuddee al quran aslan ci cosaan li annaha sifatu ndax melo sifatu zaati muqaddasa ndax al quran mooy melo jëm yàlla bu sell gi waxoon naa ko sànq ci ginnaaw kon nag falaa yakunu al xaqu subhanahu wa taala qaarian ndax xaqu subhanahu wa taala du nekk aji jàng wa yuusafu bi kawnihi mutakalliman ñu di ko melale moom yàlla ne moom aji wax fa utliqa mu ne wa yusuf te yàlla moom dañ koy melale ne moom aji wax la fa utliqa alayhi lisaan bi haada min jaryaanihi ala albasar ñu tuddee lisaan ndax lañ koy jaarale ci làmmiñ bindee fii xaytu yusamma quraanan jaar woowu nga xam ne mooy tax ñu tuddee ko alquran laa fi maahiyatihi waaye namut ci calam doon ci dëgg fii ay ni zaat ci jëmmi zaatu bi kon falaa yusamma huna foofu kenn du ko fa laa qur'aanan duñ ko fu tuddee qur'aan wala lisaanan duñ ko fu tuddee lisaan wa laysa lahu illa ismul kalaam amul benn tur buñ ko fay tuddee lu dul kalaam moo tax yàlla kalaam la wàcce ci làmmiñ kalaam meloog yàlla la mu wàcce ko ci làmmiñ ñun ñuy dégg comme ni nga xamee ni dégg la wàcce ci nopp ñun ñuy dégg wa qaala subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala wax nañu way naxadun minal mushrikina stajaaraka fa ajiru xata yasmaa kalaam allah kenn ci mushrikuuna yi bu sàkkoo nga dëkkal ko dëkkal ko ba mu jegee sa kër kàddu yàlla wal muraadu bihi li namm si kàddu yàlla foofu alquran mooy alquran wal quranu fi nafsihi mooy alquran ci jëmmi boppam alquran ci jëmmi boppam nag qaala al ulama borom xam-xam yi wax nañ huwa daallun ala kalaamillahi alqaayimi zaati mooy tegtale kàddu yàlla gi nga xam ne moo taxawee jëmmi yàlla kon nak bu boobaa yuriduna bihi alquran liñ ci nam moy alquran almaqru bil alsinatina bi ñi jàng ci suñu làmmi wa huwa dalun ala almaana te alquran joju aji tektale la ala almaana ci maana alqaayim bi nga xamni moy aji taxaw fi zaati almuqaddasati ci jëm yàlla ju sel ji wa huwa kalamullah ta moy kaddu yàlla gi qulna mu ne ñu wax ni hadha itlaqun islaqu tasamuh boyal la ko xam dañ ko boyal ngir yombal wa illa fa aynul haqiqati tu'ti an al quran al maqrubi al fitna dallun ala madluli kalamillah bu dul loolu xaqiqa daal li ñuy jàngale mooy alquran bi ñuy jàng ci suñu làmmiñ dafay tegtale kàddug yàlla laa ala ayni kalaamillah waaye tegtalewut jëmmi kàddug yàlla gi fa inna kalaamallahi fi mahiyati wal maana kàddug yàlla ca lam doon mooy maanaa gi nga xam ne alqaayimu bi zaat moo taxawee jëm yàlla ji mun tamisun aji effacé wu la mudmarun aji nërmelu la laa ibarata amul kàddu guy génnee ci moom wala tudraku lahu xaqiqa xamaluñ ko benn xaqiqa wala tuarafu lahu kayfiya xamaluñ ko ak anam nu mel fa kayfa tuabiru fa kayfa nuabiru anhu kon loolu nan lañ ci mën لأن حقيقته تابعة لحقيقة وجوده المطلق ndax xaqiqatub alquran dafay topp xaqiqab wujud ak yàlla gi nga xam ne moom càppaacur gi la wa hiya zaatul mutlaqa al muqaddasa te mooy jëmmam gi nga xam ne jëmm juñ booyal la muy jëmm ju sell ji kon nag bu ko defee fa kama la tu'rafu xaqiqatu zaat comme ni nga xamee ni dëgg-dëgg zaatu duñ ko xam min haysu ma hiya hiya ci ci lam doon ca biir lam doon kazalika ni ki noonu laa tuxrab xaqatul kalaamil azali dëgg dëgg kàdduk yàlla gi duñ ko xam ci lam aju ci aynu zatil aliya ci jëm yàlla ju kawe kon nag fala tudraku xaqiqatuhu dëgg dëggam ko xam maa lam tudrak xaqiqatuha fekk xamuñu dëgg dëggam gi maanaam dëgg dëgg kàddug yàlla gi duñ ko xam fekk xamuñu dëgg dëgg jëm yàlla gi fala fi darki xaqiqatiha آه، كان أمول سانس نك في جد دق دقم دي بوجهين في بأن أنا ولا حال ولا في بأن حال لا في الدنيا دو في أدنى ولا في الآخرة دو تاجب في الآخرة قال سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى وحنني ولا يحيطون به علما يا الله من لن كوفي الإقام كما آه، بعد درك حقيقة ذاته كم نيا خميني كم دق دق جميع الله جكا لو سوري لك duñu sori la ka baawda darku hattatil kalaamil azal yi la soree yi tamit ñuy xam dëgg-dëgg kàddug yàlla azal bi kasa iri sifatil aliya niki nga xam ne noonu la yeneen melo yàlla yi mel muy qudratu kattanam wal iradatu nam nammam wala ilma xam-xamam ila axiri sifatil maani kulliha ba sifa yi nga xam ne ñooy sifatul maani yi jeex xaqaayiquha taabiatun li xaqaayiqi wujudi zaat yi seen dëgg-dëgg dafay topp ci dëgg-dëgg ak jëm wuj xam ak jëm yàlla ji kon nag fa maa lam euh, tu'lam xaqiqatu zaat yi fekk xamoo dëgg-dëgg jëm yàlla ji laa tu'rafuha fekk xaqaayiquha doo xam dëgg-dëgg yi maanaa yi fal quran al quran alladi bi aydina yi nga xam ne moo nekk suñuy loxo dallun ala matlubu laati kalaamillah fekkal la rek ci maanaay kaddug yàlla alqaayim mi nga xam ne aji taxaw la bi zaat yi ci jëmmam ji qaala subhanahu wa taala subhanahu wa taala wax na ne allahu alladi xalaqa sabaa samawatin wa min al ardi mislahun mislahun yàllaay ki bind juróom-ñaari asamaan ni ki noonu mu bind suuf mu bind suuf mu tolloog asamaan maanaam juróom suuf kon mbokk yi eh, suñu darsu bi foofu lañ koy yemale